الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع الأنبياء alayhim salaatu wassalaam mbokk jullit yi ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ñu ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ba tey ñoo ngi ci qisasul anbiya ci istuwaaru yuusuf alayhi salaam sunu dars bi passé ñoo ngi tolloon fi mbokki yuusuf yi doon tuumaal yuusuf ak rakkam binyamin di wax ci seen wax yu rëy yu garaaw yooyu naan ñoom ñaar ñépp ay sàcc lañ ñu tuumaal yuusuf ci tooñ ak nooneel waaye tuumaal rakkam ci tooñ ak nooneel sunu borom subhaanahu wa taala di nu nettali loolu ci saar bi ci suratul yusuf aya 77 mu ne qaalu in yasriq faqad saraqa axun lahu min qabl sunu borom ne mbokki yusuf yi nee nañ su fekkee xale bi taxaw sunu kanam tey tudd binyamin dafa sàcc seet nañ ay bagaasam ñu fekk ci nattukaayu buur bi ah moom de am na magam bu mbokkal ndey ak baay seen taawu néeg sàccoon na ndeysaan wa kaana yusuf alayhi salaam yusuf ba mu déggee wax jooju ci seeni gémmiñ ci mbooloo mi te moom xam na ne moom mooy yusuf mbir mi daal di koy metti affaire bi naqari ko ba moom moo mujj di tont mu riposte ndeysaan mu taxaw delloo leen tuuma yu ñaaw yooyu nga xam ne moom lañ tuumaal mook rakkam fa lamma sami'a yusuf alayhi salaam ittihaamu ixwatihi lahu bi dalika axassa bi xuznin shadid waaye fa katama axzaanahu fi nafsihi mbokk yi yusuf bi mu déggee wax ju garaaw jooju ñu ko wax dafa am naqar ci biir xolam mu yëg ko ba ay bëtam xonq kanam gi soppeeku waaye loolu yépp nëbb na ko nëbb na mu muñ mu ne leen wa qaala baynahu wa bayna nafsihi mu wax leen mu wax digganteem ak boppam mu ne leen yéen antum charrum makaanan wallahu aalam bi ma tasifun yéen de yéen a gën a bon ñii li ngeen leen di tuumaal naan ay sàcc lañ yéen yéen a leen gën a bon lu tax ngeen leen di wax ne ñoom ay sàcc lañ ndeysaan mu tontul xale bi tontuwaaleel boppam mu ne leen innakum bi haza al qasf yéen tuumaal ngeen ngeen di tuumaal famille bi kër gi ñaar ñii charru makaanan yéen yéen a gën a yéen a leen gën a bon indallaahi ci yàlla minal maqsuuf ci ñi ngeen di tuumaal yéen ñi yéen a leen gën a bon ci ñi ngeen di tuumaal lu tax li annakum taqzafuuna bari ayni bi tuhmati saraq yéen a ngi tuumaal ñaar ñu set lii nag mu leen di wax nii nekkul daf leen ko wax ci làmmiñam mu dugg ci seeni nopp maanaam xolam moo leen di tont bi mu leen nee yéen yéen a leen gën a bon rek fa la pare xolam bi nag moo des di génnee li xew ndax ñoom ñaar dañu ne ay sàcc lañ waaye moom Yusuf xam na ne moom xam na ne moom du sàcc xam na ne rakkam bi du sàcc moo tax mu ne leen ci biir intérieur am yéen a ngi tuumaal ñaar ñu set di leen tuumaal sàcc wallahu aalam bi xaqiqa yàlla moom xam na dëgg gi yàlla xam na ne maa taqulunahu li ngeen di wax dara du ci dëgg fala ana saraqtu wala axi saraqa man sàccuma sama frère sàccul wallahu wahdahu aalamu bilxaqiqa yàlla dëgg rek rek moom moo xam dëgg gi ci ñaari xew-xew yi ngeen di wax sàcc gee ngeen may tuumaal yàlla xam na ne du dëgg tuumaal gee ngeen di tuumaal sama frère bi yàlla tamit xam na ne du dëgg waaye nag man ak sama frère ñu set lañ ci li ngeen ñuy wax yaa lahu min mawqifin asib waaye nag tey place bu jafee ngi nii place bu difficile lu tax mooy bu leen fàtte ne xale yii tey ñu jàpp seen frère ne leen sàcc la avant ñuy ñëw ci dëkk bi dafa am lu ñu waxoon ak dafa am lu ñu waxoon ak la ilaha illallah dafa am lu ñu waxoon ak li ma waxoon démb laay mujj a def rek il faut ma indi fi ay bagages yu bëree bëri ma posé question ku trouvé rek ma jox ko dars bi passé xisasul ambiya amagul une semaine tey la àllarba mbokk yi àllarba bi passé xale yi bi ñu doon départ seen dëkk di dem di jóge Kanaan di dem Égypte ci buur bi am na lu ñu waxoon ak seen papa ba ñu yóbbaale seen frère bi lan la mooy amal ci ñun confiance ne xale bii ñuy jël puisque buur bi moo demande moo ñu demandé pour mu ñëw ñu ngi jaayante sunu digganteeg yow ak yàlla ne kii dinañ la ko indilaat kii moom du mel ne Youssouf parce que Youssouf seen papa dafa amoon ci ñoom confiance ñu dem fexeel ko tey moo tax bi ñu ñëwee soxlawaat deuxième xale bi seen papa ne leen mukk xel xalaatu ko ñu taxaw di wax di wax ba siñante seen digganteeg seen papa ak yàlla xale bi seen papa jox leen ko léegi nag benn problème am na bu rëy rëy rëy rëy moom la ñu borom téere bi di nettali mu ne wa inda isin aadu ila al mawqifi al mahraj allazi waqa'u fihi aadu ila al mawsiq alladi axazuhu alayhim abuhum léegi nag dellu nañ ndeysaan comme xam nañ ne mbirum sàcc bi am na xale bee sàcc sàccul loolu moom ñoom amuñ ci lu leer visité nañ bagage yi fekke nañ li réer ci seen saaku rakk nee nañ leen seen rakk sàcc la ci kanamu nit ñépp mbir maa ngi feeñee ci seen rakk kon liñ leen wax dañ koy gëm ñu riposté wax lu nekk ñaan ñu ne leen mukk kii moo sàcc moom la ñuy jàpp bi loolu amee ñu commencé nag xalaat condition yi ñu waxante woon ak seen papa seen diggante ak seen borom ak seen papa lan lañ waxoon seen papa alxuraan moo nu koy nettali ci saar bi ba tey ci suuratu Yuusuf aya 66 waxoon nañ seen papa la ta'tunnani bihi illa an yuhaata bikum xale bii ak nu mu mënta mel situation nu mu mënta metti di ngeen ma ko indil lu dul nag ñu wër leen ndomba ñu peeg leen faraahu yastarhamuuna ñu commencé nag ndeysaan di yërëmtalu ci Yusuf lan lañ wax bi ismil walidil fata ñu ne ñu ne ñu ne Yusuf ah xale bii nga bëgg a jël ñoo ngi la yëgal ne papam màgget la cheikhun kabir bis boo téyee xale bii fii papa ji dina dee di nga ko indil problème di nga tas famille bi di commencé ndeysaan di yërëmtalu waaye loolu ñuy wax moom Yusuf yëgalu ko yaramam parce que lu tax lu tax Yusuf yëgalul yaramam li ñuy wax pièce bi moom moo ko tëral lii ñu def ba xale jàpp xale bi ne sàcc la moom moo ko tëral lan moo tax nag mu def ko lu tax mu def ko mooy pour xale bi dootul dellu na des ci moom xam na ne kii ba mu wéeteeg moom nee na ko ne man maay Yusuf yow yaay sama rakk ñun ñaar ñoo bokk nday ak bàyyi mu waxal ko li gars yi doon def lépp ak fiñ jaar ak moom ba tey mbir mi fiñ mujj xale bi nettali ko seen kër papaam nu mu nekkee lépp ba mu xam problème bi yépp mu ne ko yow dinaa def fexe ba doo dellu ci dootoo ànd ak ñoom ci man ngay resté kon moo tax bu ñu ñëwee di baab Yusuf naan ko yow da ngaa baax gis nañu teral nga ñu teg nga ñu foo ñu war a teg jox nga ñu lekk jox nga ñu naan léegi nag ñu ngi lay ñaan xale bi baayam dafa màgget nangam ak nangam amoon na benn mag bu tudd Yuusuf kooku dee na léegi baay ji kii la dese moom lay xoolee Yuusuf soo ko fi téyee góor gi day dee loolu ñu wax yépp Yuusuf yëgalu ko yaramam amalu ko njëriñ lan la leen wax bokk na ci li ñu alquran di nettali ci saar bi ba tey aye 78 sunu borom subhanahu wa taala nee nañ ndeysaan ñëw nañ nag ñu à genoux ci kanamu buur bi qaalu ya ayuha al azizu inna lahu aban shaykhan kabira fa xuz ahadana makanahu inna naraaka min al muhsinin ay waay buur bi ya ayuha al aziz ay yow buur ñoo ngi la yëgal ne xale bi inna lahu aban shaykhan kabira xale bi am na baay waaye baay joo xam ne shaykh màgget la waaye kabir ba xubidaas xam nga bu ñu ne woon shaykh rek doy na màgget la doy na ku nekk xam nga màgget waaye ñu ne kabir mooy lan dafa màgget ba xubidaas léegi nu ñuy def xam nañ ne xale bi moo sàcc waaye fa xus ahadana makaano jëlal kenn ci ñun ñun dix personnes yi tànnal kenn ci ñun nga remplacer ko placeu xale bi lu tax mu ne ñu ne inna naraka min al muhsin ndax yow gis nañu yow da ngay def lu baax ñun weddiwuñ ne léegi sàcc la waaye liñ la bëgg a wax comme am na bàyyi joo xam ne boo ko fi téyee problème am teyal kenn ci ñun ñun mag ñi nga bàyyi xale bi mu dem walakin yusuf kaana yuridu an yulaqiya alayhim darsan yus daf leen bëggoon jàngal leçon leçon boo xam ne dootuñu ko fàtte ci seen dund dafa bëggoon mbir mi metti ci ñoom dafa bëggoon ñu am mbetteel waaye lu yàlla subhanahu wa taala namm la ne binyamin bu mu delluwaat mukk ci baayam bi ñu waxee loolu yusuf alquran di ñu nettali ba tey ci saar bi ba tey aaya 79 yusuf ne leen qaala maaza allah an naaxuza man wajadna mataana indahu inna idan la zalimun ah maaza allah ñoo ngi muslu ci yàlla yàlla nu yàlla musal ñu jàpp sunu sàcc mu leer ñu ne kii mooy sunu sàcc ñu bàyyi ko di jël keneen koo xam ne deful dara est-ce que loolu bu doon fii sax justice bi dina ko nangu kii def dara ñu ñëw jàpp ko mbokk mi ñëw ne non xam nañ ne kii moo ko def mais dañuy bañ problème léegi nañ ko bàyyi mu ñibbi ñu jël magam est-ce que loolu justice bi dina ko nangu Yusuf ne leen yàlla nañu yàlla musal ci li ngeen di wax ñun ki jël sunuy bagage kooku la ñuy jàpp ñun bu ñu jëlee keneen koo xam ne deful dara ñu remplacer ko inna la zalimun kon ñun isan la zalimun ñun kon ay tooñkat lañ te yàlla bëggul kuy tooñ ndeysaan gis ngeen ci terme yi yusuf utilisé ci aaya bi mu ne walam yaqul maazallah an naaxuza bari'an bi zanbi sariq waxul yal na nu yàlla musal ñu jàpp ku deful dara ci bàkkaaru sàcc li annahu kaana yaalamu anna axaahu laysa bi saariq lu tax waxul loolu parce que moom ci boppam xam na ne frère am bi sàccul moo tax waxul loolu lan la wax maaza allah an naaxuza illa man wajadna mataana indahu yal na ni yàlla musal ñuy jël di jàpp lu dul ki nga xam ne sunuy bagage ci moom lan ko fekk gis nga waxul sàcc lu tax parce que xam na ne kii sàccul parce que moom moo tëral chaîne bi pour jàpp xale bi bu mu ñibbi wa ma nuridu an nakuna zalimin ñun bëggunoo bokk ci tooñkat yi ndeysaan léegi nag problème am na nekkatul sax problème bu ndaw mais jéggi na dayo bal sawalat lakum anfusukum amran ba ñu defee bépp pexe pour Yusuf baal leen ñu jël xale bi yóbbu ci baayam amuñu découragé nañ nax nañ moccu nañ yëf yi ne keng ñu mujj dellu si ci seen bopp alxuraan di nu nettali loolu ba tey ci saar bi suratu yusuf aaya 80 mu ne fa lamma stay asu minhu xalasu na jiya ba ñu demee ba découragé ba amatuñu yaakaar pexe yi jeex na fu ñu làmb mu dëgër kenn mënta am tontu ci seen réponse kenn mënatul delloo si seen yaakaar ah léegi nag beru nañ itazalu dañoo beru ñoom famille bi ñaata lañ woon ñaata lañ woon ñaata lañ woon non non ñaata lañ woon onze lañ famille bi yëpp boo leen boolee kër gi ñaata lañ douze nee nañ Yusuf dee na ñaata ñoo des onze léegi jàpp nañ kenn ki ñaataa des dix dix yooyu daal di beru mais dañu beroo lu ñu wax yatanaajazuuna wa yatashaawaruuna ñuy déesoo ak déeyanti kenn ki mag ci ñoom daan ne ci saar bi ba tey yàlla din ko nettali mu ne kenn ci ñoom ci aaya 80 bi yàlla ne qaala kabiruhum ki mag ci ñoom turam mu ngi tudd turam mu ngi tudd taawu kër ñoom Yusuf mu ngi tudd raw biil raw biil la tudd mu ne leen alam taalamu xanaa xamu leen yëgu leen ne anna abakum qad axaza alaykum mawthiqan min allah xanaa xamu leen ne yéen da ngeen dof yéen a ngi xool xale bi ñu koy jàpp fii te yéen da ngeen a signonté woon ak seen papa contrat ne da ngeen koy indiwaat léegi nu ngeen di def boroom xam-xam yi nag am na ñoo xam ne fii dañoo ëppal ndax dañ fee nettali loo xam ne amul ñu ne ñoom yàlla da leen a mayoon ñoom waa kër Yusuf dañoo suñu meree dañuy ngande dañuy gonflé ku ñu dóor rek foofu yëpp dootoo fa taxaw bi ñu defee bépp pexe yi fi digir këj ñu commencé di gonflé mais seen problème mooy ñoom seen biir suñu gonflé ku bokk ci famille bi ci deret bi bu la laalee rek da ngay peer léegi nag ñu commencé di gonflé Yusuf daal di wàcc fas bi mu yéegoon ku gonflé ba ngand rek mu ñëw ne ay sama waay waaye li ngay defaay nga peer jeex tàkk naan sa frère yi kan moo ma laal eh yéen ñi ko ma laal ndekk Yusuf moo la laal ku mu gis ngay commencé changé rek mu jege la ne la sama waay lan la lu xew yow door lay dóor ci mbagg nga peer mais loolu moom wax dëgg yàlla ay israiliyaat la wirul ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ñoom bu ñu meroon dañuy ngande mbokk yi bi loolu amee qaala akbaruhum sinnan ki ki mag ci ñoom muy raw bil mu ne ndax siñentewu leen woon ak seen boroom ci seen kanamu baay ne yéen da ngeen di dee rek ba ngeen jeex takk waaye xale bi moom da ngeen koy delloo si papaam xanaa fàttali da ngeen fàtte woon li ngeen def ci Yusuf Yusuf da ngeen ko abboon baayam ne da ngeen di foog moom delloo si ko ngeen dem rey ko tey ngeen newaat kii mu ne leen déedéet ngeen wax ba mu jox leen pacte seen digganteeg seen borom tey ngeen ñaar a ñëw ak ay loxo man de maa ngi leen di yëgal ni fii ma nekk ci dëkk bii muy Égypte fii laay dee lu dul xale bi dem mbokk yi léegi bàyyi ji moom bi information bi moom ñekk eggee ci moom ñetti problème la am problème bu njëkk bi mooy ah problème bu njëkk bi mooy ah problème bu njëkk bi mooy Yuusuf mu ngi ko doon naqarlu ba tabax benn néeg ci àll bi tuddee ko baytul xusn kërug naqar mu bàyyi këram mu dëkk ci àll boobu ci biir kër googu mu dese benn xale mu ko doon xoolee Yusuf ñu jàpp ko mais am na keneen encore ku geddati dëkk ba ne dootul ñëw ci kër gi mu nekk ñetti doom yu mu nar a perte ñetti doom loolu moo leen di wan ne yonent yi ñoo gën a màgg ci nit ñi waaye nattu yi ñu am ñun mënuñu ko dégg barki démb lañ jógee ci màggal tabaski ibrahima toog ba am juróom-ñett fukki at amul doom mu am doom yàlla ne ko rey ko ci jamono doom bi muy neex xoolal kii tey perte na doom doom joo xam ne xam na ne kii yonent la moo ko war a donn mu am ci moom yaakaar ndax depuis bu mu nekkee xale siiñ yi muy gis ci moom xale bi génn ñu ne ko dee na muy jooy loolu noppeegul beneen doomam bu mu doon xoole doom jooju dem muy jooy loolu noppeegul taawu kër gi tamit ne saay dem mu nekk ñetti naqar ndeysaan léegi nag taaw bi moom bi mu bi mu bi mu nee leen dootuma dellu ci Égypte laay toog dem leen ngeen jox seen papa information bi man moom xel xalaatul may jàkkaarloog sama baay parce que am na lu ma ko waxoon fii laay toog ci dëkk bi bu ngeen demee ngeen wax ko ne ñun kat wax dëgg yàlla mënuñu assuré ne Binyamin moo sàcc fekkiwuñ waaye wa ma shahidna illa bi ma alimna seede wuñ lu dul lu ñu xam sooy seede da ngay seede li nga xam li nga xam ngay seede li nga fekkee sax mënoo koo seede parce que mën ngaa fekke mbir ti xamoo mais li nga xam gis nga ñoom li ñu wax wa ma shahidna illa bi ma alimna wa ma kunna lil ghaybi xaafizin ndax ñun kat kumpa nekkuñu ñu ko peeg pekku peeguñu kumpa mbir yi daal li ñu xam ñun mooy tekki nañu saag yi gis nañ bagage am gis nga seen yoon bu mujj bi ak seen yoon bu njëkk ba wuute na tey ñu ngi indil seen papa ay témoignage pour seen papa gëm leen lu tax erreur bi ñu defoon ci mbubb ci Yuusuf la ñuy bañ mu dalaat leen parce que Yuusuf dañ ko yóbbu ci àll bi fexeel ko def lu leen neex ba pare simmi mbubbam bëgg nax seen papa ñëw ne seen papa mbubb mii mbubbu Yuusuf la pour ñu wan la ne dëgg la deret jaa ngi nii lan la lu xew tilli yee ko lekk mais bi ñu joxee seen papa mbubb mi erreur bi ñu def ban erreur lañ def ci mbubbu Yuusuf ku ma koy wax la ilaha illallah ah mbubb mi xotteekuwul tilli dañoo lekk dañoo lekk yàpp bi te tilli bi ñuy lekk xale bi mi ngi sol mbubb mi te mbubb mi bënnul erreur boobu lañ def parce que dañoo simmi mbubb mi rey benn xar tuur ci deret biñ demee jox ko seen papa seen papa jooy ba sonn yëkkati mbubb mi nag di xool mu gis mbubb mi dara bënnu ci mu ñëw ci ñoom ne leen wax leen ma dëgg wax leen ma lu ngeen def xale bi ñu ne ko xale bi tilli ya ko lekk mu ne leen bi ko tilli di lekk mbubb mi ngeen ma jox mu am deret moom la soloon ñu ne waaw rek papa ji tàllal mbubb mi ne ah tilli bee ko bëri yërmande ñu ne ah mu ne lekk ko sans mbubb mi xotteeku rek ñu xoolante ñu xam ne def nañ erreur bu rëy mooy loolu moo lay wan ne gis nga enquêteurs yi ginnaaw bañ leen ko jàngalee ba pare nit bu def erreur day neex a jàpp parce que booy def crime wala ngay def lu garaaw da ngay yàkkamti te doo am fit gars yi nee nañ bu bu groupe gi jiitoo sàcc bi nekk seen biir boo nee ee rek day geesu lu mu luy geesu loo def bay geesu loo def bay geesu Yusuf bi mu demee kër buur bi am na benn sàcc bu mu fa mës a jàpp dañoo sàcc dara ci kër buur xamuñu kan la ñu accusé ñaari nit Yusuf nekk xale bu ndaw bi mu ñëwee mu xool leen ñoom ñaar mu ne man xam naa sàcc bi ñu ne ko ah noo ko xamee mu ne ñaar ñi kenn la ci mais man xam naa kan la ñu ne ko léegi dañoo bëgg nga wax ñu kan la mu ne indi leen kaala ñu indi kaala mu ne takk leen ñoom ñaar seen bët ñu takk seen bët mu ne ana rek reykatu nit bi ci biir biir biir pale bi ñu ne ko mu ngi fi ñu ne dem leen ngeen indi ko mu indaale jaasi ji muy reyee mu ñëw ñu ne leen mu ne leen teg leen ñoom ñaar ne mu ne ana reykat bi reyal waa ji rek waa ji ne du man de mu ne ko yow la yow mii la gis nga la ku am ku def lu bon doo am fit loolu moo tax souvent gars yi ñuy tarxiis ñu leen di jàpp ndeysaan mbokk yi moom raw biil nee na dootul dellu dem leen ngeen wax seen papa information bi ngeen wax ko li xew léegi nag wasalil qaryati allati kunna fiha papa demal nga laaj dëkk bi nga xam ne ba ñu soldaar yi di arrêté di xool suñuy bagage pour nga xam ne ñun li ñu wax bii pa fexeeluñ sa doom sa ñaareelu doom bi demal nga laaj waa dëkk boobu ndax fekke nañ ko biñ ñu arrêté waa dëkk bi génn nañ di seetaan demal nga laaj waa dëkk boobu loolu mooy première deuxième bi wa inna las wal iira allati aqbalna fiha demal nga laaj caravane bi nga xam ne ñun ak ñoom ñoo daje woon ñii ñëpp boo leen laajee papa di nga xam ne ñun bii paa fexe lu ñu sa doom deuxième doom bi Binyamin ndeysaan di nga fekk boo leen laajee ñaari information yi yëpp boo laajee waa dëkk ba nga laaj caravane bi bi ñu àndaloon jóge Égypte di nga fekk wa inna la sadiqun di nga fekk ñun ñuy nekk ñu dëggu ne rey ñu xale bi bi papa ji dégloo xabaar yi ba pare ndeysaan lan la leen tontu ci saar bi ba tey aaya 83 sunu borom ne bal sawalat lakum anfusukum amran seen papa ne leen ah seytaane taaral na na encore seen pexe fexeti ngeen rek ni ngeen fexele woon magam yuusuf tey moom xale bi noonu ngeen ko fexele waaye fa sabrun jamil xaaral ma muñ muñ bu rafet loolu moo tax mbokk jullit yi qisasul anbiya jàng histoire yonent yi du nekk rek lu ñuy jàng comme histoire yi ñuy jàng ci dëkk yi ñu naan nangam ak déedéet histoire jàngalee jaar-jaar yonent yi dañ ciy jëlee yonent yi natt yi ñu amoon ak ni ñu muñee xoola góor gi liñ ko nettali rey déjà perte na ñetti doom waaye lan la tont mu ne fa sabrun jamil naa muñ muñ bu rafet fa sabrun jamil muñ muñ bu rafet lan mooy muñ muñ mooy lan kan moo may wax lan mooy muñ muñ mooy lan bismillah keneen kan moo may wax lan mooy muñ n'est-ce pas ñun dañuy muñ di nga muñ di nga muñ di nga muñ yéen ñëpp di ngeen muñ lan mooy muñ bismillah nga nangu li la dal te doo jàmbat keneen bismillah ah nga jàpp ne li la dal ndogal yàlla la keneen boroom xam-xam yi dañ naan as-sabru xabsu nafs ala ma takrah muñ mooy nga yen bakkan bi nga def loo ko lu mu buggut a def loolu mooy muñ nga yeew bakkan bi def loo ko li mu buggut a def loolu mooy muñ xabsu nafs ala ma takrah mooy nga poñe bakkan bi def loo ko jëfloo ko lu mu buggut a def su ma doon joxe misaal ci koor laa koy joxe koor dafa neex wala dafa métti dafa métti mais da nga koy defloo bakkan bi fal force wala doo ko defloo gis nga lekk xoolal lekk ni mu neexee xoolal naan ni mu neexee nga dox ba naaj bi tàng jër diggante une heure ak deux heures nga ñëw ci biir kër gi yaa ngi siit nga ni nii frigo bi gis yëpp sedd nga tëj nga ni nii ci suuf gis gis fruit yi nga tëj pourtant am nga ci aajo de mais gis nga poñe nga bakkan bi tere ko lu sedd loolu tere ko lekk yooyu xiifloo ko ba timis jot loolu mooy muñ loolu moo tax yàlla di ñu jàngal ci koor pour comme nangu nañoo bàyyi lu dagan kon bu koor jeexee war nañoo bàyyi lu aram lekk ak naan dafa daganoon ci yow koor jot yàlla ne la poñeel bakkan bi ba lii mu bëggoon di ko def nga xañ ko ko ci ay waxtu kon su koor gi jeexee war ngaa mën a bàyyi lu aram war ngaa mën a poñe bakkan bi ba ne ko ni ma la poñee woon ci koor gi ba defoo lee noonu laa lay poñee lii incha allah dootoo ko defati boroom xam-xam yi nee nañ muñ ñetti façon la ginnaaw ba ñu xamee baatu muñ ñu ne muñ ñetti façon la mu ñetti façon la bu ci njëkk hmm? muñ topp yàlla gis ngeen li ñuy def nii ku ku bëggul topp yàlla doo ko def topp jaamu yàlla dafa metti xoolal tey fajar ban heure la ah instant bii sax yow fajar neex na parce que guddi gi day day day tàng yooyu amaana nangam ak nangam waaye xoolal jamono sedd ni mu lëndëmee nga dégg asalaatu xayru minan nawm nga ni bërët jóg te kenn yeewu la yow sax yaa réglé sa portable wala sa montre amoo loo tàngale ndox nga dem dugg ci ndox mu sedd mi nga pare xuus lëndëm gi jëm jàkk xool loolu ni mu méttee ah neexul de topp yàlla ku bëgg a topp yàlla da ngay muñ da ngay muñ topp yàlla ku ku munul muñ du topp yàlla parce que yàlla daf lay wax dafa lii bàyyi lii léeg-léeg mu bàyyi loola lu neex sa xol léeg-léeg mu ne la am na lu nekk sa poos joxe ko loolu kon soo muñul doo topp yàlla ñaareel bi mooy mooy yàlla foog nga muñ pour bàyyi ko mooy yàlla foog nga muñ pour bàyyi ko mooy yàlla dafa neex di waaye soo muñul doo ko bàyyi ñetteel mooy foog nga muñ jafe-jafe yi feebar yi ak nattu yi lii mooy muñ ñett yi ko def am nga muñ yow mën ngaa muñ ñett yi ko dul def amoo muñ bokkoo ci léegi nag ñett yi yépp bi mu dalee yaqub lan la wax fa sabrun jamil danaa muñ muñ bu rafet laa ajidu siwa sabr instant bi ngeen di wax ak man awma beneen ngànnaay lu dul ma muñ insha allah muhtabisan ajara allah asa an yatiyani bihim jamia dinaa muñ takk sama xol amaana bisa ngi ñëw ñoom ñetti ñëpp yàlla dina leen recruter delloo si ma leen ndeysaan moom yàlla innahu huwa al alimu al hakim moom yàlla alim mooy aji xam ji hakim mooy ko xereñ gi gis nga ci alquran loolu boroom xam-xam yi naan mujiza ijaz sunu borom subhanahu wa taala dafa bëri ci ay aaya buy wax ak ñun bu aaya bi di jeex mbirum ñoom yusuf ñoom ñett lan moo leen dal dañoo réer kan moo xam fu ñu nekk sunu borom subhanahu wa taala moo xam fu yusuf nekk gis nga papa ji bi mu waxee ci aaya bi bay daaneel dafa delloo yàlla xam-xam bi mu ne innahu huwa al alim yàlla rekk a xam parce que mbirum xam-xam la foofu moom xamul pourtant yonent la mu noon na ne xaaral ma def nangam ak nangam pour ma xam samay doom fu ñu nekk yonent la ye nekkul rek yonent sax mais doomu yonent la doomu yonent la kooku am na garaat de Ibrahima mooy maamam Isxaaqa mooy baayam moo donn yére bi nga xam ne moom la ñuy sololoon Ibrahima ca safara sa mi ngi yére ba te xool leen lii dal ko ci ay nattu mu perte ñetti doomam Ibrahima démb doomam lañ ko waxoon mu rey Nuux barki démb doomam la ndox mi labal jàng ngeen ko ci xisasul ambiya doomam bu fekkee yonent yi la yàlla di nattu ci seeni doom kon keneen nag benn waay ci weeru koor dafa ñëw ci benn marché bu tudd marché Zing mi ngi màndi mu ñëw ñu indil ko benn chaise mu toog benn waay dugg ci marché bi naan doomu diw ñëw na doomu sëriñ diw ñëw na gaa yi ñëw fekk ko mu ngi màndi benn waay naan non bu leen xool li ko dal xool leen doomu kan la bu leen xool li mu def xool leen doomu kan la li mu def amul importance xool leen papaam rek ndeysaan Sénégal ak ruslu ak yërëmtalu Sénégal Sénégal moom bu sa baay baaxee bu yeboo yow nga nekk reykatu nit ba nga nekk góor jigéen wala nga nekk trafic à drogue ba nga nekk naankatu sàngara yow ku baax nga suba nit ñi ñeme lañ laa def ilimaan ku dee nga jullee yaay takk sa yi te bu guddee nga dem ci baar bi di naan lu tax mooy doomu diw olof yi sax nee nañ yàlla baax na bañ ne mooy doomu diw diw doomu diw diw diw diw amul njëriñ de diw bu la taxee hmm? boo ci lekkee ba mu ëpp diw diw diw danañ yàlla jubal mu ne al aalim yàlla rek a xam bi xaali bi xaali sama situation bi ma nekkee man yàqu yàlla rek moo ko xam al hakim fi tadbirihi wa tasrifi yàlla rek rek moo xam ci ay mbiram xale yi ñu ngi dund wala dee nañ mbokk yi yaqub ci kër googu mu tabax néeg boobu mu tabax tuddee ko baytul xusn néegu naqar jooy na fa ba bët yi bët yi déedéet bët yi weex am na benn feebar boo xamante ne bu sa bu sa bët yi tegee der bi lu ñu lay wax kii dafa dafa katarak dafa jooy ba katarak bët yi weex tal kenn gisatul per bu ñuul bi per bu ñuul bi lënd nëbbatu lu tax ndax perte bi mu perte ñetti doom yi xam ngeen diggante Yuusuf bi mu réeree baay bi ñaata at la ko naqarlu ñeent fukki at yonent bu yàlla nattu 40 ans ñun ñu bëgg yàlla dun nattu ñun ñu bëgg dun am problème ñun ñu bëgg dun am jafe-jafe ñun ñu bëgg dara dunu metti xoolal bu kii yonent la doomu yonent la maamam ibrahim xaritu yàlla wattaxaza allahu ibrahima xalil te jamono yooyu yëpp munoon naa ne damay dem ci bàmmeelu ibrahim ma dugg fa xalwa ma ñaan ci biir bàmmeel wala ma dem ci sama bàmmeelu baay ishaq ma dugg fa xalwa ma ñaan ah waaye yëpp daf ko delloo borom bi subhanahu wa taala mu jooy ba bët yi weex tal ba su xoolee doom yi doom yi dootuñu gis peru bët bu ñuul bi lu weex tàll la ñuy gis ci bët yi ndeysaan mu tëju léegi sax da daan génn ñu koy gis mu isolé wu famille bi complètement lekkatul naanatul lan lay wax wa tawalla anhum suñu borom moon ko nettali ci saar bi ci aaya 94 84 lan la wax moom góor gi wa tawalla anhum ndeysaan mu dëddu leen wa qaala ya asafa ala yusuf ay waay man sama musiba bi fan laa jëme ak moom moo man fan kan moo may wàllu yusuf mi fan laa koy giseeti yàlla ne wab yaddat aynaahu ay bëtam weex na min al xuzni ndax naqar fa huwa kazim góor gi mujj na xuugee sew na ruuj jeex takk deseetul lu dul kawaru bopp ku ko ne jàkk rek xam ne kii dafa am naqar dafa am problème lu tax ku doon jooy kenn ñett ñëw ñaar ñëw tegu ci mu nekk ñett wax dëgg yàlla nattu weesuwul noonu waaye nag sunu borom subhanahu wa taala loolu mooy atteem ci kaw suuf inna allaha iza ahabba qawmu ibtalaahum yonent bi nee na yàlla bu bëggee ay nit da leen di nattu ku yàlla tegul nattu rek xoolaatal sa bopp loolu tax borom xam-xam yi ku ci toogoon weer feebaroo wala dara dalu la ci sa njaboot wala fas wi ngay war wala tool wi wala da nga naan am na lu ma def yàlla de yax yàlla booyal ma nii rek may dem am na lu xew ndax yàlla bu bëggee ay nit da leen di natt jàngeen ci alquran yàlla mu ne alif lam mim ahasiba annaas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun yàlla ne ndax da ngeen yaakaar da ngeen naan ay jullit rek ngeen gëm ngeen yàlla rek ma bàyyi leen noonu ah non foog ma teg leen samay natt ba ma xam ne li ngeen di wax jullit ngeen dëgg la wala du dëgg léeg-léeg yàlla mettil dëkk bi ba doo am dépasse nga génn for kalpe ci buntu jàkka ji nga ubbi ko gis 10 000 nga ubbi beneen côté bi gis carte d'identité waa ji te yaa ngi moom xam nga ko yéen a bokk jàkk ji léegi nag yàlla di la xool ndax yow imaan bi ngay woote ndax doo képp 10000 bi daal di ne bilaal ah kalpe bi dafa laa ko fekk ah nañ xool li ci nekk fekk xamoon nga li ci nekk ba pare na nga dem sa kër ne sa soxna xéewal yàlla dikk na am naa xéewal loolu xam nga ne du xéewal xam ngeen portable ku ko for coupé ko naroo naroo jàmm wala est-ce que loolu xéewal nga for ah ah wala nga fekk ko ci sa oto ñu fàtte ko ci nga jël ko coupé ko est-ce que da nga koo fas yéenee delloo kon yàlla na yàlla jubal mbokk yi ci dars bi la ñuy yem insha allah ba àllarba bii di ñëw ñu ñaan borom bi subhanahu wa taala mu jéggal ñu njuum tey assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu